والقلم وما يسطرون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 wa rahmatullahi wa ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di dollee amati mbégte ak kontante ci jàkkaarloo gi ñu jàkkaarloo gi yéen ci seen kanam yu leer yii ci leeri tabaraka wa taala di am mbégte it ci eh, dajale gi nu fi dajale muy alquranul karim mu mel ni mbooloo mu suñ mbooloo mu mën a daje mbooloom alquran a ko gën kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax te di leen ci ndokkeel di leen siyaara surtout kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci biir te te tey yóog te eh, nanguwuñ ko ko xam dañuy yóog te ay te doon ay kilifa tey yóog ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp ñu fas yéenaa tàmbali bind bi ñuy waaxoo bi jàngale it ci rasmu di te di jéggalu it xeeti xeeti njuumte yi nga xam ne mooy am waaye alquran moo ñu tànnaloo ne allazina yastamihoona alqawla fa yattabihoona ahsanahu ulaayika allazina hadihumullah wa ulaayika hum ulul albaab ñi nga xam ne seeni xel daa ñëw moom la suñ borom di wax ne buñ déggee ay wax rek dañuy tànn la ca gën a rafet ñu jàpp loola ne ah, waa ji nangam la bëggoon a wax bismillah kon ñu ngi tàmbalee ci alqawlu fi ma rasamoo bittaayi min haa'i taanisin ala stifaa'i rahmata fi lbikri wal ahraafi wa fi hoodin waroo min maryamin wa suxrufi kasaaka na nahlin najlin na najaatin quduri fi rahmatin fa mahfa bima wa maa qawi wa nimatal oxra min al awaani wa qabl ishamma wa fi lhimraani وفاتر وفي قليل حرفان نهل أقيرات وتور لقمان وهكذا نهمة ربي ترتسم عن ابن قاسم وهتاء وهكم نجعل القول فيما ها wa sunnatul anfaali waa xam nga xam nga li ma ci xalaat mooy li ma ci xalaat mooy lañ jëloon démb rek laa nattoon muy juróom benn bind yi juróom juróom benn juróom benn laa nattoon ci ndax démb biñ ko defee daa mel ni dafa jafewut te man li ma ci amal solo mooy jàpp gi ndax bind bu xas bu baree ba bare ba bari it am am am kii rek lay doon ay ay démerde rek ñun ñëpp jaar nañ ci bind bu néew bu bari bismillah alqawlu fi ma rasamahu bittaa'i min haa'i taanishin al istifaa'i rahmata fil bikri wal ahraafi wa fii hoodin wa roomin maryamin wa suxrufi kasaaka an nahli najaatin qudri qudrudi fii rahmatin mahsu bima wa maa qawi wa nimatal oxra min al hawaani wa qablu ishamma wa fi lhimraani wa faatirin wa fi qalilin harfaan nahlin aqiiraatin wa tuurin luqmaan wa hakasa nihmatu rabbi turtasam nim ni yi waa taa in waa akam dafa dafa am ay boole yu ne ci biir rek moo tax mu mu mu xaw a mu xaw boole yu ne ci biir boole yu ne ci biir moo tax mu am différence waaye boo ko xoolee da ko ci gis xam nga li ma wax waaw dafa am boole wu ne maanaam rahmata ji laa la laa génnewaale comme dañ koy jàng te mi ngi ci kii bi xam nga li ma wax waaw comme dañuy jàngaale boole bi te mi ngi ci té moom bindaale naa ko ci téere bi moo tax mu def différence ci euh, kii bi waaw xool ngeen ko bu baax waaw alqawlu wax ja fii maa ca la nga xam ne rasamoo bindoon na ko bi te i ci taa min xee i taanis in te a i taanis al istifaa yi ci matale lim la bëgg wax mooy taa yi nga xam ne dañ leen a bind muy taa joo xam ne dangay def aw rëdd rek teg ñaari tomb ca kaw muy taa yi tanis rahmata fil bikri wal ahraafi maanaam lim ci jublu mooy rahmata ji njëkk ci saaru bàqara rahmata ji ci saaru bàqara ulaika yarjoona rahmatallah moom la ci jublu mooy bi njëkk bi ci saaru bàqara wal ahraaf ak ja ca lahraaf inna rahmatallahi qaribun min al muhsinina wa fii huud ak rahmata jëca huud rahmatullahi wa barakaatuhu aleykum wa ruumin ak jëca ruum jan moo nekk ca ruum hmm? unzuri ila asri rahmatallah moo ne ca ruum sooratu Maryama ka ca nekk mooy waskuri rahmati rabbik sikkaru rahmati rabbik wala sikkaru sikkaru rahmat rabbik moo ne ca Maryam suxruf ahum yaqasimoona rahmat rabbik ak wa rahmatu rabbika xayrum mimma yajmahoon ñoom ñaar yooyu moo ne ca suxruf kasaani ki noonu anali najaa jëlee nañ ca doomi najaa qudrati ci nettali si rahmatin ci rahmatin fa bima fa bima rahmatin min linta mu ne waaye wamaa xawi dëgërul li dëgër mooy fa bi ma mi minallaahi linta moom taasa xeer la jooje moom du du taatombe xaa taatombe am na taasa xeer am na taasa xeer la nag da ngay bind xaasa xeer ba noppi def ci ñaari tomb mooy taasa xeer wa nihmatul uxraa ak nihmata ja mujj ca sóoratul baqara mooy waskuro nimatallahi aleykum wa ma ansala aleykum min alxammi min alkitaabi wal hikma waa kay wax xabla ishamma ak ji njëkk ji njëkk ci ishamma muy waskuro nimatallahi aleykum ishamma xawmin wa fi himraan ak ja nekk ci imran muy waskuroo nimatallaahi alaykumu iskuntumu ahdaan hmm. ñu jàll wa faatirin ak ja ca faatir muy waskuroo nimatallaahi alaykum hal min xaaliqin xayrullah moo ne ca faatir wa fi qalilin hirfaan suuratu ibrahima it am na ñaari xaraf ba ca njëkk mooy wa in tahuddoo nimatallaahi laa tuhsoohaa alam tara illa lasina baddalu nihimatallaahi kufran ak wa in tahuddoo nihimatallaahi laa tuhsooha ñu jàll waxaa kasaa ni ki noonu niimata ja xam ne niimata naxli aqiratin am na ñetti am na ñetti naxli am na ca ñetti yoon ba ca njëkk mooy wa niimatun wa bi maa ni wa bi nihmatallaahi hum yakfuruuna ak yahrifuuna nihmatallaahi summa yunkiruunahaa waskuroo nihmatallaahi ñett yooyu yëpp nga ngeen ahli ñu dem wa kasaa ni ki noonu nihmatu rabbi yi ak nihmatu rabbi yi hmm? tóori luqumaan aha am na watu wa tóori wa tóori moo am fa bi maa ni fa bi maa anta bi nihmati rabbik ca tóor xam nga fi ne li tax boole xaw a garaaw fi mu ne daanaka boole bi moo ma sànni ba mënuma koo liir fi mu ne mën naa koo wax nii te du ma ko xool mais bu ma ko xoolee am problème fukki la fukk la ak ñaar fukk la ak benn nii ma tatalli fukk la ak benn aleykum yaar laa nag gallaay isham ma njoogu kufra nag laa tux sooha yépp biréem hum yakkafuroon ak suma yunkiroon ak waskuroo yépp naa li lu yuriyukum luqumaan hal min xaaliqin faatiri bi nii mati rabbika nga tóor fi mu ne xoolal ni may def mokkal naa ko te maa ngi ijji waxaa kasaa ni ki noonu niimatu rabbi ni ki niimatu rabbi turtam turtasam bindeef na ko anim ni xaas yi xaysin doomi xaysin waa ataayin ak ataayin waa xakkam ak xakkam ñoom ñooñu dañoo wax ne walaw laa niimatu rabbi la kuntu minal muhdarina jooju moom taasaaxeeru ge taasaaxeer la walaw laa niimatu bii moom taasaaxeer la kon ñu yem foofu ñu demaat hmm? alqawlu wax ja fii la nga xam ne rasamoo bindoon na ko bi taa i ci taa min haa i taanisin ci haa i taanis alistifaa yi ci matale rahmati fil bikri mooy rahmata ji nga xam ne moo nekk ca saaru bàqara ulaayika yarjoona rahmatallah waxoon nañ ko wal axraafi ak ja ca laxraaf mooy rahmatullahi qaribun min al muhsinin wa fii huut hoodin rahmatullahi wa barakaatuhu ruum unzur ila asri rahmatillah mariam waskur nihim sikkaru rahmati rabbik sikkaru rahmati rabbik ca ca mariam suxruf ahum yaqasimuuna rahmat rabbik ak wa rahmatu rabbika xayrum mimma yajmahuuna kasaani ki noonu an najaahin jëlee na ci wax nañ ne najaa doomi najaa xaw ma nu ko ab sàkk di waxee naa naaji eh, ma ngoog moom moo wax ne nettali na ne fa bimaa rahmatin minallaahi linta moom jooju moom taa taa tombe la waaye du wérut wérut moom taa sàqeer la wa niimatul uxraa niimati ji mujj minal ahwaani ci soortu bàqara waskuro nihmatallahi aleykum wa ma ansala maa nga ca sooratu bàqara moom ni ma tàlli la ak ji njëkk ci ju mujj wa xablu wa xabla ishamma uskuro nimatallahi aleykumu moom moo nekk njoogu mooy maa ida wa fii himraan it nimatallahi aleykum iskuntumu ahdaa an ak ja ca faatiri waskuro nii matalay aleykum hal min xaaliqin ja ca soortu ibrahim ñam na ca ñaari yoon hmm? alam tara ila lasina baddaloo nihmatallah wa in tahuddoo nihmatallah xam nga ay kaang dañoo yomb waxal bu ko defee nax am na ca ñett waxoon nañ ko wa bi nihmatillahi hum yakfuruuna ak yarifoona nihmatallah ak waskuroo nihmatallah ca nax li tuur fa bi maa rahmat fa fa maa anta bi nihmat rabbik kon yooyu yëpp taaxi taa tombe la waxaa kasaa ki noonu nihmatu rabbi moom itam wax wax lañ la walla laa nihmatu rabbi moom liñ koy bindee moom mooy taa sàqeer moom ñu def nii hmm? waaw ma leer na ah leerul leer na waaw ah, demal demal demal waaw effacé effacé effacé la waaw na ñëw effacé lépp rek effacé na ñëw bëj bi bu wooyee bu wooyee bu wooyee day day day ruus day ruus. daal lañ wuuteeg bii bii mooy taa am bu ne am am waaye bu doon ca wolof ya nag bu ca wolof ya nag ñun dañuy wax ne noon ay ndégeel miim taasa xeer waaw waaw laam waaw lama liif nuun ay ndégeel miim taa tombe bu dee bii taasa xeeru geen waaw daa am genn maanaam lu mel ni siin waaw raa taa sax xeeru léegi araf yi araf yi rek lañuy lañ lañ lañuy la wane kii taa sax la kii taa sax xeeru geen moo kii ñoo bokk waaye kii moom taatombe la hmm. lii rek lañ ci jublu woon du leer na ah kon li ci des mooy nu joxe turu boole bi hmm? Hmm? waaw waaw waaw waaw Hmm? waaw ñu ah. waaw aca ma ne ah, waaw waaw ah waaw waaw waaw daanu waaw am na na am na am na lu ko gën a leer. a wax. waaw <laughs> ñoo ngi lay soxla kay. mu ne alxawlu wax ja. li bëgg a wax. fii maa ni jëm ci la nga xam ne. rasamoo bindoon nañ ko ñoom saxaaba yi. bi taa ci taa. taagu tàlli. min ha itaanisin. jóge ci xew tanis. xew tanis. bi nga ne muslima. xam nga ni jigéen ngay waxal waaye mu ne muslim rek góor nga waxal kon jigéenal nga ko mu'mina tu mu'mina jigéen nga waxal muhsina kon loolu mooy xaw tanis maanaam rax nihmatu boo doon bind arab rek nihmatu sañoo ko tàllal loolu doon sa waxi bopp dong la sañoo ko tàllal alxuraan nag dafa wuute ak xatt imla yi mbindum arab dëgg-dëgg moo tax ñu naan rasmu usmaan yi ni ko suñu naan Ousmane doxee woon rek noonu lañ koy euh, continuer di ko bind ba nëgëni loolu moo war xawut anis la woon waaye nag ñu def ko taagu tàlli alxuraan da ngay gis yëpp yenn yi mu def ko xawut anis yenn yi mu def ko taagu tàlli kon nag yi nga xam ne xawut anis la woon bu wér ñu def ko taagu tàlli moom lay jàngale ñu ñëw euh, xales si faay ci matale lu mel ni Euh, rahmata fil bikri rahmata gi nekk ci baqara muy ulaayka yarjuuna rahmatallahi dégg nga euh, ak euh, aaraaf mu ne laaraaf am na am na am na am na am na am na am na nihma am na rahmata ah rahmatullahi inna rahmat rahmatullahi waaw inna rahmatullahi xaribun min al am na fa inna rahmatallahi xaribun muhsinin sañoo ko banque sañoo ko def taa saqeer comme ni mu ko waxee sañoo ko moom tàll rek la la nangu am na boo xam ne euh, wafi huut ak euh, saaru huut moom it am na euh, rahmatullahi wa barakatu rahmatullahi wa barakatuhu moom it sañoo koo banque am na ruum mooy déedéet boobu boobu Mariam la am na ruum unzur ila asari rahmati waaw kay boobu it moom it da koy tàllal sañoo ko boo demee Mariam euh, ah, zikru rahmati rabbi moom it zikru rahmati rabbi moom it sañoo koo tàllal sañoo koo banque danga koy tàllal boo demee suxruf da nga koy ahum yaqsimuna rahmata rabbik da nga gis euh, hmm. waaw benn aaya bi moo am ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari rahma benn bi mooy wa rahmatu rabbika xayru mimmaa bi mooy euh, mu ne noonu nag foofu noonu ba tey an nag li najaax ci bind xam bind lañ ñi jàngale bind nag lu najaax dafa wax nañ ci moom maanaam jële ci moom fii rahmatin ci raxma fa bi maa rahmatin moom mu tàllal ko waaye nag wa maa xaw yi waaye loolu dëgërul ñu tàllal fa bi maa raxmatin fa bi maa nga nga tàllal ko sañu sañoo ko maanaam ah, sañ na ko sax ndax comme moom def na ko xilaaf la waaye bi gën a dëgër mooy mooy ah, ah, banque ko fa bi maa raxmatin ne laay linta lahum ba tey ñu ñëwaat mu ne wax jooju dëgërut maanaam comme noonu na Najaax wax ne maanaam nañ ko def moom loolu lu néew la ñu koy def wa nihmatal ura ak nihmatul yeneen minal xawaan baatu nixmata comme léegi rahmatu ne woon mi ngi ci nixma nixmatu boo doon bind arab rek sañoo xéewal ngay bind comme ni nga ko war a bind da nga bind taa def ko moo annasa xawut anis waaye sañoo ko def taal kàlli waaye alxuraan ci ay ijazaatam ijazaatam mu wuteeg yeneen yi loolu moo da ciy feeñ wa nixmatul uxra minal xawaan minal xawaan mooy baqara boobu moo tolloog waskuru euh, ni'matallah waaw waskuru ni'matal waskuru euh, ni'matallahi aleykum wa maa anzala aleykum min kitaabi hikmati yahiizukum bihi kaw it yu Baqara la nekk waaye ni'mata jooju suñu ko banque da koy dalal wa qabla ishamma waaw ba tey moom it euh, ni'mata ji nga xam ne dafa jiitu ishamma muy waskuru ni'matallahi aleykum ishamma xawmun sama xaw ma yëpp surtout il est comment il est boobaa moom it sañoo koo tàllal sañoo koo banque koy tàllal wa fil imran ak ci ali imran ali imran am na nihmatullahi aleykum iskuntum ahdaan moom it sañoo koo banque da nga koy tàllal wa fatirin am na fatir kon maanaam comme dellusi woon na ci kii rek daanaka delluwaat ci kii day kii wa fatirin ak fatir wa fil xalil ak ci ibrahim ibrahim am na ñaari araf waaye alam tara ilal lazina badalu nihmatallahi sëñoo ko tàllal sañu ko banque da koy tàllal ak euh, weyn taxu doon ni matalaahi laa tax saa sañu ko banque da nga koy tàllal naxlin maanaam sorut naxli am na ñett waaye dafa ëpp ñett moo tax mun la yu mujjee ñett ya waaye am na dafa ëpp ñett moo tax salaasu la wax ñett ya mujj sorut naxli dafa am ni maytee dafa ëpp ñett waaye ñett yu mujjee rek yooyee rek la ñuy tàllal te dara dañ koy bank wa tuur sóoratu tuur moom it am na nihma joo xam ne dañ koy tàllal luqmaan am na fa wa hakaza nihmatu rabbi turtasam nihmatu rabbi nag dees na ko bind ibnu xees ak xataa ak xakam ñoom dañoo wax ne dañ koy bind taagu tàlli ta taagu tàlli taagu banku waaye taagu tàlli gi mooy li gën a siiw taagu banque gi mooy li gën a siiw wala laa nixmatu rabbi lakum du mel moo dalin moom it taagu banque gi moo gën a siiw ñu ngi jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullah. Hmm? waaw yu mujj ya waaw ñoom ñett ñëpp dañuy ba dañuy tàllal dañuy banque dañuy banque dañuy tàllal dañuy tàllal waaye banque gi moo ëpp dañuy taalal ñoom dañuy taalal ñoom ñett ñëpp dañuy taalal waaye banque bi moo ëpp loolu laa nihmatu rabbi la kuntu minal muhdarin suñ téere yëpp dañ koy banque suñ téere yi ngay nii yëpp dañ koy banque kon kon kon rahmata yi nga xam ne day tàlli moom defe naa ne bindoon naa ko ci nusq yi rahmata boole rahmata moom yaakaar naa bindaale nañ ko ci nusxu yi ku ko xool nañ ko ci gis yaakaar naa boole rahmata bi <laughs> naka mu ñu wax ko bon dañuy wax ne rahmata ma man bi man bi ma ko sëñ daara bi jox daf ne ma rahmata taajoor waaye yéen comme dañu leen a tayal ba ni raxmata talli ah taajoor de waaw taajoor hmm? nihmata taajoor mooy yewul sawaay kaay joxe boole boobu <laughs> ñu dem raxmata tal raxmata taajoor sabatun juróom-ñaari yoon la ñëw ci alquran mu ne yarjoona raxmatallaahi laan inna rahmatallahi nga laharaaf rahmatallahi nga hóot sikkaru rahmatee nga mareem ila asir rahmatee nga ruum rahmati rabbika ak wa rahmatu rabbika yëpp suxuruf mu ngi noonu ci téere bi ma demaat waaw juróom-ñaar la waaw rahmata taajoor sabatun juróom-ñaar la sabatun rahmata taajoor joor joor mooy mooy mooy wolof mooy wolof bi maanaam joor mooy loo xam ne daa def ak ndand foy foy rek booy xoolee doo gis dara loola moo tudd joor ñu tomb ca kaw nag ñu ne eh, taa tombe ya maanaam taa tombe yañ fa siin moo indi taa joor taaja ca joor ga maanaam bi mu doonee ndand fooy fooy dara dañ caa tomb ñaari tomb léegi nag seen gañ fa seen ñaari tomb ya moo tax ñu tuddee ko taaga ca joor ga léegi lii rek mooy joor maanaam fu dara niwut yéen ñi ku ci doon béykat da nga xam ak joor mooy fu dara niwut fu fu leer loo xam ne tubaar kàlla dara du la fa nu mu tuddati mooy joor léegi nag bu ñu fa defaatee nii nag lañ fa séen muy taa mu ñu ne taaga ca joor ga waaw loolu moo tax bu ñuy jàng nag wax dëgg jàng jafe ndax man bi may jàng yaakaar naa def naa juróom-ñeenti at yoo xam ne gisuma samay waajur te ba may ñibbi ba ma ñëwee ba ci kër gi sama yaay moo ne jóg ni ay sama doom jàng ci laa door a xame ni kii mooy sama yaay waaye jigéen ña fa ne woon xaw ma ci woon kenn ku moom parce que am naa juróom-ñeenti at yoo xam ne gisuma sama dara du ndey du mbokk du xarit du waaye du jege ñaale du najaay man képp ñu bàyyi ma damaa bëri bëri ba jóg taxaw rek lu ne nag daj naa ko loo défini wu daj naa ko ci adduna rek daj naa ko ci lii waaw ruuxa la suñ borom foog kii rek ñoŋal rek waaye koy mënoon na caa moo tax nag suñ borom defal na ma ci yeewu goo xam ndax yëre muñ ma ca woon te ruq yu bari eh, demoon naa ca te it ña ma doon ña ma ko doon wax itam xereñoon nañ ci eh, eh, yëfi mag ñi waaw loolu moo tax mën naa cee suñ bu ñu àndee ndimbalal suñ borom mën na si na cee leeral lu bari ci ci ci ci ci alquran hmm. kon ñu jàll mooy taay joor seex bi mbàkki ball maa ngi seex sab atun juróom-ñaari yoon la ñëw ci alquran rahmata yi nga xam ne taay joor la kooku moom mën nañoo bañ a yàggal ku dem mën nga koo recopier parce que ngi ci mi ngi ci nusxu bi waaw waaw ci nihmata waaye rahmata moom moo ci néegul non rahmata moo ci ne mais nihmata moo ci néegul waaw kon ñu ñëw ci nihmata ah acca ay kon ah waaw kay kon xanaa manes naa wàcc rahmata taajoor ak nihma nihmata nihmata talli comme léegi nag nihmata talli la ñuy wax dafa talli bankuwut kii moo banku waaye kii moo talli nihmata talli kon yewun fukk la ak benn xalikum yaar yéen a xool na su xool ko aleykum yaar bu ma juumee nga ne ma juum nga laan la ak galaay isham ma njóogu kufran ak laa tuf sooxaa yépp ibrahim birima mhm. hum yàkk furoona summa yunkiroona ak waskuroo summa yunkiroona haa hmm? yépp nax li li luqumaan hal min xaaliqin faandaak bi nihmati rabbika nga tuur leer na ma demaat hal min hal min xaaliqin faandaak waaw faandaak mooy faatiri waaw hmm. waaw waaw ansala galaa la ko def waaw waaw ci la ko tënk waaw waaw kii indi waaw rek loolu rek la loolu rek la dañoo bëgg nga xam fam ne rek dañoo bëgg nga xam fam ne xam naa sëñ Abdou mos na ci mag ñi dara boo masaan di beqi boo demee ba nga xam ne gis na ñaari yàq yoon wu njëkk yi moom mën nañ lay pardonné ay yàq di la toppal ngay dem waaye boo noppee nag dañuy jël kurus nga toog da nga ko jàng téeméeri yoon benn robo bi da koy jàng lu ma téeméeri yoon tariwaat ko su ko defee nag boo beqim ñaareel ma nag moom ñaareel lañ la ca daan may du bari moom benn yàq ñaar rek ñu jël eh, nga dem raxasi bindiwaat ah. loolu moo ko hmm. ah, kon ñu demaat nii taajoor ye un aleykum yaar laan ak gàllaay xam waxoon nañ leen laan mooy lan waxoon nañ leen ko mooy lan galaay nag njoogu nag birim nag naxli moom moom naxli rek la xal ah. min xaaliqin faandaak bi nihmat rabbika ngu tuur baax tabaal huda bismillahi rahmaani rahim xam naa démb ñu ngi woon ci El ci lañ nekkoon ci lañ jeexale woon waxoon nañ lan moo koy lan moo koy sabab hmm? lan mooy sabab li ñuy wooye al al madd wala al mat lan moo koy sabab al mat wala mat ci wolof lan moo koy waral lan mooy tax maanaam matt war a am ci liñ jàngagun démb naam am bu ñëwee ci ginnaaw alif masalan lu mel nan hada yakfi benn ngi noonu am sa bu ñëw sa bu ñëw ñuy laaj dañuy mbooloom dañ bari dañu bëgg ku ne ñu laaj ak sa ak par adal mumkin ku ne bu lu ñu laaj yemal ci loolu bu ci yokk dara dégg ngeen dañu bëgg bu ñu mënoon ku ne ñu laaj la dañ koy def mooy tax duñu bëgg ko aywa kii wax na boo njëkk wax am sa bu am sa bu ñëw pardon li mu wax dafa leerut am sa bu ñëw ginnaaw xëcc loolu dafa ihtimaal lu bari dafa dama bëgg mu taxdid wax lu leer am sa bu ñëw ginnaaw alif hamza jayit ma alif baadaha hamza misaal fi hada urid min alquran alkarim min alquran alkarim wa jaa rabbuka wa jaa rabbuka jayit intahana min alif athani ma huwa bu ban la anta ah? laa intahayna min hada boobu wax nañ ko anta kay yow mi yor waa yow ah mu ne waxal lu continuel loolu su boobaa li ñuy bëgg a jàng lay nekk loolu kay lay ah waaw ba'da hamza waaw ba'da hamza voilà lu comme lan waaw baax na hamza comme lan ah yasuu yasuu baax na intahanaa min min alif wal wal wal aywa anta ginnaaw yaa misla ma misla maada misla maada la bu kenn tontu te laajul la comme lan anta ah waji a ah, yawma idin bi jahannam jayit voilà loolu léegi nag dañuy continuer loolu mu wax lu bari li mu wax lu bari dafa dugg ci biir li wax lu bari dafa ci biir loolu moo tax mu muy continuer nii kada man yàqaral bayit mhm. mhm. wanaw waawit ah? saw saw i alayhim dairatus ah? voilà mu ne kadaali warshin baada yaai shay fi maddihi wanax wi waawi saw da ngeen mu ne itam bokk na ci fi nga xamante ne bi maanaam dañ ne maanaam matt dana fa am wala euh, xëcc dana fa am kañ ci warsh lañ wax ci warsh lañ wax ginnaaw lu mel ne shay am dañ am na ñaari riwaaya dana ko tawassut dana ko ishbaa seetlu ngeen ko ndax chey da ngeen alayhim dairatu sawi da ngeen alayhim dairatu sawi chitu xarakaat wala wala arbo xarakaat tawassut wala ishbaa warsh da ngeen mu ne kadali warshin su boobaa nag waaye bu ngeen xoolee almaamul bi indi na ndax soow dangeen ngeen gis bee ñu def ci benn mat wala chey ah effectivement duñ ko ci def duñ ko ci def ñun bu ñuy bind chey nii ngeen ko xamee woon lañ koy bindee nii rek da mais fii doom benn mat da ngeen mhm. kadali warchin mithla yaay chey yi fii maddihi ci xëcc ka gi wa nax wi waawi saw yi ak lu mel ne waaw saw am nañu ne dañ cee teg maanaam ak mat bu ngeen xoolee téere bii ngeen yor teg nañ ko ci kaw téere bi eh, jës kii bi xarraas bi teg na ko ci kaw da ngeen mhm. loolu am te ne azraq li tawassut mais daani moom waxu ci dara da ngeen ko bu baax imaamu daani dafa noppi ci masala bi da ngeen ko bu baax waaye nag warsh an tariq maanaam eh, riwaaya warsh an tariq azraq ñoom dañuy ishbaa shay da ngeen aussi itam am nañu waaye maanaam am na ko woon wax fii démb maddul badal li mu wax dafa dugalaale mbooleem xeeti hamza yi lii nag moom lañuy ñuy wooyee maddul liin maddul liin foo ko fekk xam ngeen ne yéen waaw masque ban moo ko baaxoo féetee ginnaaw ah fatha ah waaw masque bu ko faa baaxoo féetee ginnaaw ngeen ne ah ay waa jëlee anta donc effectivement loolu lañ ci xam xool leen fii dégg ngeen xoola waaw lii la xam maanaam waaw masque lonku la xam dégg ngeen bu baax fatxa masque maanaam lan moo ko baaxoo xëcc lu mu xeetool alif loolu nag mooy safaan bi dañ naan kon li nga xamante ne bi moo waral ñu ñu dugal ci bunt bii maddul liin dañ nekk waaw masalan saakin wala mu nekk yaa saakin baadahuma fatxa te loolu nag xëyru xiyaas baaxu wute am loolu moom ñu di koy madul lii su boobaa nag ñun dañ koy dugal ci àttib maana yi ñuy xëcc ndax lii dafa baaxu wute am yaa ma maanaam lii yaa kii la xeetoon maska suuf la xeetoon waaw maska lonk la xeetoon mais bu ngeen xoolee alayhim daaridu saw i di fatxa la ah shay bi yaa bi ku xam ne lii fatxa la ñu di ko wooye maanaam madul lin madul badal foo ko fekk dafa nekkoon ñaari yu bokk ñu soppi benn boo ñu soppi ko def ko xëcc kam am na ko waroon wax fii démb sëñ bii la bi muy laaj loolu boobu ak seeguñ ci woon asluhu kaana a amantum nii la doonoon aa ah, ah gisoo ko ni ñu dindi bii soppi ko kii daal ne amantum ah, da ko bu baax moom itam moom itam bu dee ci warsh dañ ne da koy euh, tawassut am nañu ne dana ko ishba lan ngeen ciy def yéen ah ak xasru yëpp am na ci ah tawassut yaa ayuha alladina amanu euh, yaa ayuha alladina amanu euh, hmm? waaw waaye ñun li ñuy teel du nu ñuy jànge nu ñuy bindee rek la ñuy toppatoo dégg naa fii dem ngeen ne loo xamante ne bii laa yahummukum ras rasmu nu ñuy bindee dong lay la la la toppatoo ñun nu ñuy maase rek la ñuy toppatoo ñun nu ñuy jàngee suñu yoon nekku ci nu ñuy bindee suñu ñun nu ñuy maase dañuy toppatoo fii li ñu fi tax a ñëw mooy lii même ça fii li ñu fi tax a ñëw mooy lii ñaari xam si yu ñu boole def ko genn bu ma ñëwee man nan laa koy maase man loolu moom ma tax a ñëw fii mi ngi nii boo nee nii ah waaye ndax te lañ jàngoon démb am na ko wax mim gu ndaw dagg dagg daal ga ah, ah man tout boo ñëwee gis ko ñu def nii ñu ne ah kon lii maanaam maddul hmm, maddul maddul badal la da nga xam ne ko ci ñaari xam sa la doonoon bari na moroom nag ci alxuraanul karim loolu rek moo la ci yitteel yow nuñ koy jàngee nuñ koy nuñ koy nuñ koy bindee sa yu néew ci nañ koy jàngee kee la nañ koy bindee rasmu la yow loolu toppatoo noo koy maase boo ñëwee xam-xam ba ne dafa am loo xam ne loolu mooy limitam te hmm, nga war a yem hmm. aywa man yaqra waaye yaqra ma anta wa in takun saaxitatan fil xatti alaqta xamran li jaalil mat léegi-léegi nag xamoo fi amoo fi muskila ndax da fee fekk da nga fee fekk maanaam li nga soxla da ko fee fekk yasuu da nga fee fekk maanaam li nga war a def lépp léegi-léegi nag matt bi ci boppam fi mu dëkk la ko tax a jóg léegi-léegi dafa du nekk way in takun fi fil xatti li xamran li jaalil matti su fekkente ne bii nag matt gi fi mu dëkk ñëwut yow nooy def bala nga bala nga andi matt gi da indi fi mu dëkk ba pare da ngeen bari na ci alxuraan karim lool daal fi hada <clears throat> masalan boo euh, jëloon kalima شوفها معايا شوفها ido ko ni ki ñëwut ci masaf Ousmane di ñëwutoon kon yow matt gi boo ñëwee am na ñaari wax nag waaye la lëg la lëng te ñu almaamul bii mooy boo ñëwee yow bala ngaa def ak matt delloo si lii ba pare su ko delloo si ba pare daal matt gi nag fii fii ci kaw da ngeen waaye in takun saaxitatan fil xatti alxaqta xamran li ñaalil matti na nga ko ilxaq waaye nag na nekk xamraa de parce que mooy wane ne li nekkul maanaam li ñuy woowee maanaam euh, al aliful kaxlaa alif kaxlaa mooy alif boo xam ne foo ko fekk day ñuul moom moom asli la ci baat bi ko déggee alif kaxlaa mooy wane ne maanaam kii doonu ko moo tax mooy alxaqta xamran pour lan li jaali matt ngir matt gi nga war a andi nga am foo ko mën a teg waaye nag ndax toujours la ñu ne ah déedéet de su la neexee itam nga bañ a andi maanaam loola mais nga indi matt ga direct teg ko palaasam ñu ne lu tax ñu ne parce que maanaam matt rek boo ko xasee indi xam nañ ni fii maanaam lu xëcc am na fi parce que matt moom foo ko fekk foo ko fekk waaw mooy ne ci ginnaawam walla alif walla wala yaa am ñu ne kon sa solo neexee doo ko andi nga xam ne su boobaa soo doon jël loolu nii ngay def. al ulama wala nii ngay def lii da ngay def noonu da ngay def bàyyi noonu waaye al muhim mooy al maamulu bihi indana actuellement ci ñëpp mooy al ilhaq maa jaay li matti maanaam fawqahu loolu mooy li ñuy jëfandikoo kon dangay ngay si waat maanaam maanaam araf ba fa manqué ba pare teg matt gi ci kaw am na ñu ne nag dagal nga ni ko direct sans sans nga nga teg euh, nga sans sans indi araf bi waaye wayin takun saaxatatan fil xatti alxaqtaha xamran di jaalil matt da ngeen waate leer na wala gisoo li ma doon wax léegi jàngal ko bi ma dégg aha man yaqra fi hada laa laa la waxid yaqra gayra hada naam effectivement wa in tasha ilhaqaha tarakta wa matatan موضعها جعلته وإن تركت إلهاق يعني إلهاق الحرف تركت هذا وتجعل المط موضعها loolu moo nekk nii soo la neexee nag nga bàyyi ilhaq bañ caa def dara teg matt ga maanaam fa fa fa xëcc nga waroon na nekk loolu la wax wa in tasa soo la neexee tarakta nga bàyyi ilhaqaha andi ga nga bëggoon andi maanaam araf ba fa woon su boobaa nooy def mu ne su boobaa nag wajaxalte da ngay def mattatan maa xëcc nga fa xaa ci kaw place ba ma doon nekk loolu mooy lañ doon lañ doon misaal léegi lii mooy xaala saani yi am ci matt maanaam naka lañ koy indee faaw a fond dégg kon baaxut uh, uh, uh, léegi su la neexee kon dangay ngay indi alif bi teg matt gi ci kaw wala nga bàyyi ko noonu bañ faa def dara waaye kon li ñuy jëfe mooy andi ko teg teg xëcc gi ci kaw dégg ngeen mhm. voilà loolu lépp euh, imaamu Daani wax na ko Abu Daawud Ibnu Najaa wax na ko waaye nag almaamul bi mooy alwaccu al awwal dégg ngeen moom bi al alwaccu al awwal loolu nag léeg-léeg nag day am benn xaala bu am bu ngeen seetloo fii ñuy wax dalaa waxoon ne baadaha hamza aw sukun seetlu ngeen ko baadaha hamza aw sukun léeg-léeg maanaam ilaq day am ah te hamza du ñëw sukun du ñëw nan ngay def loolu waa ji wax ci mais dañ ko war a indi dangeen ngeen léeg-léeg man yaqra li ci topp ayo naam parce que dama dama bañ ñu ne ñu ne ñu jege rek ci laa bu may bu ma yemee fii rek dañ may jam ayoo ca ginnaaw ca ginnaaw yow e eh, charakti charakti ak kan yow ñëw nga gis naa la yow ñëw nga e ñëwagoo tey ah kay kële borom mu raay ku xonq gale dafaa sawt mm-hmm. ay wa ifaa sawt anti mm-hmm. واصلي mhm. كونتينل mhm. aha loolu mooy loolu ma doon wax léegi mooy nag amidul haada lii ma leen jàngal fii andi maanaam matt gi teg ko ci kaw kaw kaw kaw kaw kaw kaw araf foo ñëw soon wala moom dong amidul haada xukmuha yakunu in lam yakun hamzun wala sukunu ci fan fii kulli ma xad si taxaw min yaay aw silatin adarka baad al haay am na ñuy waaye maanaam yaaw zawaid bari na ci alquranu karim lool silatu damir bari na ci lool mu ne foofa yi nag su boobaa ñaar dagan na mais doo boole ñaar yi ñaar dagan na mais mais doo boole xam nga fii bu ngeen seetloo da ngaa ba pare andi màtt gi mais su boobaa dañ naan la ñaar moo dagan ñaari lan andi maanaam andi maanaam eh, kii bi andi eh, eh, matt gi rek nga mën a def dégg ngeen wala nga andi xëcc gi bàyyi ko noonu waaye nag doo indi kii bi ba pare andi lii ndax su boobaa soo andee lii andi lii day mel ne kon maanaam dañ koy jaawale ak lañ war a xëcc maanaam muy muy ay mbokkam sufa parce que xam sa moo ñëw ginnaawam seetlu ngeen ko bu baax voilà loolu la wax wa mislu haada comme lii ma la wax xukmuha atteeb loolu yëkkoonu mooy nekk illam yekun xamatul bu fa am sa amut wala sakon sukkoon amu fa ci lan fii kulli ma ci lépp loo xamante ne bi xar sittawoo dañ ko da nga ko dolli ci baat bi waxin la nag waaye dolli woo ko ci waaye da nga ko ca war a dolli ci lu mel na min yaa ci lu mel ni yaa xoola boo ñëwoon fii li danañ ci ñëw. Mhm. <coughs> <coughs> <coughs> ñu ne la fii ñaar dagan na nga xool araf ba fa manqué nga indi ko wala nga def ak matt bañ a bañ a boobu da ngeen fii boo ñëwee yow ma yow ma yeeti laa takalamu nafsin illaa bi lay jàng ah yow ma yeeti mais yàggoo na am na ci baat bi amu fii da ngeen ko xonqal wax yaakaar naan de du dee ko xonqal dafay amul moo tax ngeen di ko xonqal mooy li ñu la wax mooy loolu ñu la wax waaye wii ngeen jàng ci ginnaaw loolu moo tax ngeen di ko xonqal mais xonq la ngeen ngeen xonqal ko wayantakum saaxatatan fil fil xabti xam ah, ah, xamran loolu tax maanaam ngay indi lii loolu moo tax mooy bind kaamil da ngay indi lii da ngay indi lii wala léegi nag danga la su fekkente ne bii xamoo liñ doon wax booy mooy mooy xamsa moo amoon xamsa nag amut xamsa amut sukkoon amut waaye nag daa am yaaguñ dolli ci baat bi te ñëwutoon alxaqtaha dégg ngeen daa am damir bu ñu war a xëcc te amutoon kon da koy indi mais nag indi boobu lañ ne la mën nga am ñaar mën nga andi loola rek bàyyi noonu wala nga def makaanaha mappa lii itam daga na da ko bu baax loolu lañ wax almaamul bii huwa alwaccu al awal da ngeen alwaccu al awal ni ñu waxee. naar gàdd naar gàdd jaañ xam naa yow waay waay mboolekat yi ñoo ñooy xam naar gàdd jaañ waaw naar moom mooy xonq yi xam naa ne gàdd jaañ nag man xawma ko moom dégg ngeen voilà kon loolu la ñu wax foofu dégg ngeen wa wa mithlu haada xukmuha yakunu in lam yakun hamsun wala sukunu fi kulli ma xarsittahu ah min yaayi ah aw sillatin atatka ba'da al-haay xoolal li bismillahi rahim lahu lahu lahu bi wa in takun saaxitatan fil xatbi bu leen fàtte ne maanaam matt ngeen di jàng wa in takun saaxitatan fil xatbi alxaqta xamran waaye charte bi fii nag amul hamza amul sukkoon waaye nag day ñëw buy ñëw nag nan lay ñëwee xal yakunu mattan aw aw yakunu maddan loolu yaay seetlu loolu ci loolu ci nekk waaye almaamulu bihi mooy yakunu xarfu maddin munaasib lil xaraka allati qablaha da ngay xool la war a xëj araf ban la xeetool nga yokk fa araf boobu in kaana bamma yakun waaw saxiir in kaana yaa in kaana kasar yakun yaa saxiir ok ñaar yooyu rek moom lay nekk nag xool leen fii lahu kon da ngay teg fii ak la ak lan waaw gu ndaw hmm? lahu ma fi samawati wala nga def nii nga def nii def nii lii tam dagan na dégg waaye nag al maamulu bihi al wajhul awwal dégg ngeen al wajhul awwal hmm. Mm-hmm. imaamu daani moom loolu la wax mooy li li li mooy la awal ilhaq rek moom moom ci la wax mais nee na fii moom matt ma bokk fii matt daal li wéru mooy ah ilhaq lay àndal da ngeen ah te yakun baada hamza parce que dañ ne fii fii fii fii soo fi defoon ma kii eh, soo ko andi woon andi li munoo koo dajale ndax su boobaa dañ yaakaar na am sa dafa am te am sa amu fi da aywa lu ci topp man yaqra man yaqra anta naam yow waaw fay sawt aywa kada xiyaasu ah mhm. aha jamil kada xiyaasu kada xiyaasu naxu laa yastaxyi ka xawlihi anta wali yi yuxyi mu ne nag atte bii ma la jàngal atte bii ma la jàngal yasri fi kulli kalima fiha yaani da ngeen waxti fa maanaam eh, asaniya fu ngeen fekk baat boo xam daa am ñaari yaa tañ asaf genn yaa gi même atte bi maanaam moom lay amee da fa fekk baat boo xam daa am ñaari yaa tañaa saf genn yaaga même atte bi maanaam moom la amee su boobaa kon mooy lan da ngay ilhaq ba nag moom ñaari anam moo ci dagan da ngay andi maanaam xaraka mujaanisa wala nga def ko matt waaye almamul bii mooy xaraka mujaanisa voilà pardon bu ngeen mu jege ma nii tegal ma fii waaw afan tegal ma fii waaw voilà waaye man maay jàngale waaye yéen tam maay jàngale. jàngale man maay jàngale. bismillah. inna allaha raxawatirtul bind nag li ma bind nag mbindum mbindum daara mbindum daara laay bind tey ah non mbind dafa gën a gaaw mbind mi dafa gën a gaaw ah, bu leen neexee de alxuraan daal ngeen xam ne yàllaa ko moom da ko ñëpp a ko mën a yàq mbind mi dafa yeex neexut a jàngale mbind mii dafa yeex ci kuy jàngale da ngeen kada xiyaasu naxu laa yastaxi ka xawlihi anta ah anta wali yi yox yi loolu mooy lan fu ngeen fekk baat boo xam ne dafa am ñaari yaa tañ adaf maanaam waaw ñaareel gi même atte boobu moom la amee ilhaq ngay def wala nga ni mat waaye nag almaamul bi mooy al wàccul awal mooy ilhaq kon wa in tasha euh, ilhaqa tarakta lii taxul muy wax dégg ngeen taxul muy wax lu tax ma def laay sax yi mi ay yadriba bi lu ngeen ci déggee ndax moom lii ñoo bokk xool leen fii voilà dafa wax ne fu ngeen fekk baat boo xam daa ñaari yaa bañaa saf yaaw ñaareel ga même atte bu moom la yore maa ñaari baat inna allah la yastahi an yadriba ak wallahu la yastahi min alxaq fii lan moo leen séparé ndax ñoo bokk wala bokkuñu anta ci kaw am sa gi ah. bi ci kaw daa am hamza hamza moo ci topp bi ci suuf amul am sa mais bi ci kaw euh, ndax bokk tax na ñu wax wala taxu ñoo wax ah? bi ci kaw fan la bokk ah tey lañ ko jàng wala wala démb lañ ko jàng ah walla dul seet tey kay lañ ko jàng ngeen ne ah ah o faw xawaawin foofu la bokk de o faw xawaawin suma yaa wa alifi maptun parce que baada hamzun taaxara démb lañ ko jàngoon da ko bu baax leer na lañ jàngaat li ñuy jàng tey lépp amut hamza baadahu loolu lay jàngale yi nga xam parce que maanaam soppi soppi am sa lu bari dafa nekk ci biir lee demb lañ ko jàngoon ci àtte bi démb bala bokk dañ bañ ngeen jaawale ko lii xëy kii moo tax muy wax ak moroomam yi daam ñaar yaa ñu bal bal lañ ci asaf ñu ne bu ñaareel bi maanaam moom lañ asaf mooy ay nabi yi nekk yëpp ñoo bokk même àtte wuute nañ ci mais lañ jàpp rek mooy yaa ñaareel gi maanaam maanaam moom moom mooy xonq moom lañu asal kon fii boo ñëwee laay sax yi man nga koo def nii walla nga def ko bàyyi ma sama même sax nga def ko matt rek ah, nga def ko matt dégg ngeen waaye nag almaamul bii mooy alwaccul awal dégg ngeen alwaccul awal dégg ngeen alwaccul awal alwaccul awal الوجه awal من الحق gisoo dañ na la euh, bu fekkente ne bii maanaam amul hamza alaama ba nga fay def alaama ba nga fay def dagan na mu nekk maanaam xëcc ka si la dagan na mu nekk maanaam maat loolu lañ la wax waaye nag ñu ne la almaamulu bihi mooy la nekk xëcc ka la lañu bañ nag mooy nga nga boole leen loolu la ñuy bañ parce que soo ko boolee dañ ciy dégg ne hamza dafay war a am te amu fi loolu la ñuy bañ dégg nga voilà parce que matt bu ñëwee rek xam na ni lii dañ koy xëcc loolu la ñu wax seetlu ngeen ko xaw matt moom du ànd ak mukk lu may lu ñuy xëcc kon même bu fi nekkee moom kepp rek di dégg nañ kii dañ koy xëcc ah moo tax ñu ne ñu ne bu la ci neex nga def waaw voilà faaw nga faaw nga ilaqo bu dee bu dee kii bu njëkk ba li njàngoon démb faaw nga faaw nga ilaqo waaw waaw waaw lu mel ne chauffant mais nee na nee dagan na nga bañ ko ilaq andi ko direct waaye alamamul bi te mooy ilaq maal mat ida kaan baa da xam sa yaa ngeen fa wax. Hmm. maanaam kon boo xoolee kii hmm. sila bi nga def ci laa bii day mel ne bay waaw ah. day mel ne kon laa yastaxi gi day lijjanti waaw moom lay lijjanti xamsa bi lay lijjanti effectivement moom lay lijjanti waaw noonu la mat bi moom kii lay lijjanti kii lii lay lijjanti noonu la waaw hmm. léegi nag fii li tax ñu ne la mën nga ko indi moom dong dañ ne soo ko indee rek xam nañ ne kii dañ koy xëcc parce que parce que matt du am mukk ci lu may lu dul xëcc ah. lii wala wala ci kaw kii bi ah, yéen yéen lan lan la leen jàngoon dem fu matt di nekk yéen laa koy laaj matt fan lay nekk fa waxal yaa waxal yaa la leen jàngaloon wala ñu ne dagan na mu commencé ca. ah léegi yaa moo fi fekkente ne maanaam taw eh, eh, gi mooy mooy ga ngeen xamoon ci ay moroomam dong kat ñooyam kepp moo alif ak waaw ak ak nangam ñoo bokk tey bu doonoon jaa ah eh, da ngeen may fonto bu doonoon jaa ah xool leen fii bu doonoon jaa foo koy teg da koy teg fii ci kaw alif nga koy teg

waaw xam naa li mu wax waaw ci arab yi xëcc lay tege xëcc kër gaa ngi nii maa ngi xam li ngay wax parce que kii xam nga ñaari yàlla ñaari yàlla seetlu ngeen ko kii kii dañ ne dafa dëkk ci baat bi ñaari yàlla ñaar saf genn gi loolu la mais loolu lañ jàngale sax loolu mooy dañ dégg mais loolu lañ jàngale ñaari yàlla ñaar saf genn gi effectivement noonu la nii la ñaari yàlla ñaar saf genn gi te kii lay tegee parce que lañ doon coow rek mooy lañ doon lañ doon wax mooy ndax xilaaf ba am fële soo ko doon defar da nga naan nii ndax dangay def da nga naan nii non non kuy jàng da am seetlu ay mag ngi ñun tam la baaxee da ngeen ndax ci kaw lay tege nii masalan walla day commencé nii jëm si nii loolu rek mooy xilaaf bi da ngeen ndax fii lay tege wala day commencé fii jëm nii loolu mooy xilaaf bi ñu ne nag almaamool bii mooy day day tege ci boo foo ko boo foo waawin loolu la waxoon wa fawqa waawin alif yaa mabto wa fawqa la wax hmm. jamil kon daal kada xiyaasu naxu laa yastaxyi ka xawlihi yi waliyi yuxyi kon loolu leer na mu jàll yaakaar naa ne buntu boobu ndax jeexul walla voilà buntu boobu foofu la jeex kon loolu lañ doon wax ci wàllu ci wàllu sukkoon ah? ci wàllu sukkoon doon ko wax ci wàllu euh, sadda doon ko ci wàllu matt muy xëcc ko dégg ngeen yaakaar naa bu ngeen seetlu am na détails yu bari yoo xamante ne bi ah, euh, nekk na ci kon jàll ci buntu bi ci topp aywa man euh, léegi am na itam loo xam ne téere bi waxu ci dégg ngeen mais dañ koy dégg ci li muy jàngale lu mel ne saar yi fi mu tàmbulee fi mu tàmbalee bu dee ci tënk màcc def gépp dañ ne kenn du ci def dara dañ koy bàyyi noonu dégg ngeen xëcc daal lañ koy def mais doo am hamza doo am sukkoon doo am sàdd doo am dara bu dee bu dee waa waa waa waa penku yëpp noonu la ñuy def loolu nag mooy suñu safaan ñun règle yi ñu jàngal bu dee bu dee bidaay du suwar lu mu laaj da ko da da nga koy def dégg ngeen xam ngeen ne bari na bari na maanaam maanaam. Euh, euh, sukkoon torop xëcc ko bu ñu ginnaaw sukkoon seetlu leen ko bari na ci lool taasim miim alif laam miim xeet yooyu bari na ci su boobaa lan la jàngal lu moom ngay def dégg moom ngay def comme ni ngeen koy maase mais loolu téere kii waxu ci da koy dégg nag ci lim ci lim la jàngal xilaaf la nag fawaati suwar ñoom waa penku dañ ne kenn du ci laal dara dañ koy bàyyi noonu ndax du am dara dañ koy bàyyi noonu rek waaw bu ngeen xoolee kaamil ma di it waaye bu dee bu dee maanaam sow bii ñun dañ koy mas xam nga da ngeen alif laam miim dañ koy dañ koy réyal ah, ah, ah, kii gi day day day am matt la ko waral yow yaa nga dellu ca régal bañ la jàngaloon wa fawqa ya wa fawqa waawin aywa aywa xaa bokkul yéen itam wa fawqa waawin su ma yaa waa alif yi mattun ci chartum nag voilà voilà waaye lale moo tax yow yow nga koy màgg sukkuun ba mu wax ca kanam hamzun aw sukkuun dégg nga in udrima loolu mooy alif laam miim day mel ne ñaari miim la taasin miim ok mais téere bi waxu ci man yaqra man yaqra yow ca ginnaaw laa lay yóbbu ca ginnaaw laa koy yóbbu waaw voilà kii kii jege na mais mosul jàng aywa iqraanta aha ah ñu yem fii kay moom. jox leen de ban. leelum ndar waaw kay yow ko bind kay jox leen. kay. déedéet man kay amul nga ñu taal. ah voilà. voilà. Ah, ah, ah, way wi. wa hada hukmu wa mithla hada hukmu yakunu. ah. ah jàngal wayu ma dégg. ñaari way la jàngal jàngal ko ma dégg. لم يكن حمد ولا سكون في كل ما قد سلته من ياي أو صلة أقلت بعد الهاي mooy loolu loolu mooy mooy sila mooy xëcc moo mooy li ma doon misaal mooy lexu aw silatin atarka baadal haay xëcc bu ñëw ginnaaw xa hmm? lu mel ni lexu xeet yooyu boo xoolee itam ah, effectivement euh, yooyu rek la ay lexu xeet bari nañu alxuraan nag ah ah boo xoolee miim miim ñun bu dee ci bu dee ci bu dee ci riwaaya eh, xaaloon hmm? xam nga day xëcc aleykum wa anfusakum aleykum wa anfusakum su boobaa itam dutu bokk fii day bokk fële ca lañ jàngoon seetlu ngeen ko waxab ah, la waaw ca lay bokk mais bu dee bu dee warshon tarix azraq moom aleykum ah la ñuy jàng loolu moo tax law moo tax waxu ko waxu ko mais mais seen damir daal maanaam euh, damir xaw ma bari na ci alxuraan karim trop foo ko fekk moom mu àtte boobu lay def aw sëletin wala xëcc boo xam ne attaque dafa laa ñëwal baadal ha ginnaaw ak ha lu mel ne lahu waaw lu mel ne bihi voilà voilà xoola bihi ko fàtte gisoo ko nii bihi su boobaa yow da ngay kii rek da ngay da indi ilxaq rek ngay def ilxaq rek ngay def dégg nga nekk yaa saxi wala nga def nga def mat nga def mat waaye imaamu dani moom hada huwa maamul bihi da ngeen loolu mooy loolu mooy loolu mooy silatu xëcc boo xamante ne bi ab damir lay xëcc waaw non moo jaadu sax bee mooy mooy mooy almaamul bihi day xonq waaw loolu moom dana ci wax lépp lépp lu ñu leen wax lépp lu ñu leen wax ci xeet yi moom ñoo bokk benn groupe waaw ci li ñuy moom dañuy xam man yàq la waaw ñu commencé bunt bi rek ah ah ay kii moo doon jàng pardon ah, ah, ma dégg mhm. Mhm. Mm-hmm. aywa wala yusaddu hada yakfi mm-hmm. uh, alxawlu fil mudxami eh, aw maa yudharu nee na mi ngi bëgg a jàngale lu maa lu ñu war a idgham xam nga ne kon ñu ngi continuer xarakatul xarakatul xarf yi lu ci topp ah déedéet fële laay wax ca masaaj bopp yi laay wax xarakatul xarf yi sukunun xat jara aywa shaddun wamut xamun aha shaddun pare nañ ci sukun pare nañ ci xaraka pare nañ ci idgham moom moo nekk nii da ngeen idgham moo nekk nii moom lay jàngale nee na alxawlu fil mudghami aw ma yuzharu li may bëgg wax mooy li ci lu ñuy idxaam wala lu ñuy feeñal loo xam ne ak su idxaam la muy dañ dañ maanaam araf bi dañ koy maas kenn du ko idxaam alxawlu fil mutxami aw maa yuzharu nee na nag mu commencé kon da bi adresse bi mu joxe idxaam la njëkk a wax waaye izhar la njëkk a jàngale parce que ay waxam bariwut xëy na fa muzharun ñu ne ah mu ne sukoonuhu musawwaru lépp loo xamante ne bi dañ koy izhaar sukkoonam da nga koy bind mu leer dangeen lépp loo xam ne dañ koy izhaar sukkoonam moom da nga koy bind mu leer bismillahi rahim kon dafa ñëkk jàngale izhaar jàngale hmm. euh, bu ñëwee tajal alaamatu sukkoon alaamatu sukkoon almutaxaddam alayha masalan xadd sami allahu zoli xadd li mooy idhaar xadd xadd sami allahu fa mudharun lépp lu ñuy idhaar sukunuhu musawaru da nga koy bind da léegi nag boo paree la ca topp nuñ koy jànge nooy def mu ne waxarrikil xarfa alladi min baadu xasaba ma yuqra waaye nag wala yushaddu soo sukkoonee la ngay sukkoon ba pare la ca topp waxarriki na nga maas alxarfa alladi min baadu araf bi ci topp bi ci ginnaawam noo koy maas mu ne ah mun moo ko wax nag yaay xool lu mu war a doon nga def ko ko parce que fii mënu ko wax nga xamut la la nga isaa la ca topp lu mu doon moo tax mu ne xasaba maa yuqra kenn nañ ko war a jànge waaye la ma xam daal mooy wala yushaddu kenn du ko sàdda loolu daal wóor na ma ci moom gisoo ko noonu voilà parce que gisoo ko ni xat sami kii kay kii kay sa fa la laaj mais soo jëloon beneen masalan boo boo ma waaye sukun ah ah anamta voilà mais ah ah min ghislin voilà jéeg bay moo gën waaw bale moo gën waaw min ghislin parce que fii yu bari feeñ na ci ñan ñooy bind nii mbindin bi mbindinu fan la ndax mbindu kasin bu la mbindu fan la mais mbind mbindu gedde la man foofu laa dëkk man foofu laa dëkk dégg ngeen <laughs> voilà gisoo ko nii parce que xasab maa yuqra mooy loolu xasab maa yuqra yaay seet rek sukkoon ba la ca war a topp loolu moom bindkat moom kii way mënu koo xam yaay xuraan lam ca lam nam commencé rek nga commencé ko ko moo tax mooy xasab maa yuqra waaye lam xam mooy wala shad moom mënuñ koo sàdd mu ko ndax su boobaa idxaam lay nekk te mënul nekk izhaar la ñuy jàngale izhaar daaw mooy foo ko fekk araf bi ñu izhaar dañ koy sukkoon sukkoon bu leer soo ko sukkoon araf ba ca topp nee na maas ko nañ ko nañ ko war a jàngee waaye lam xam daaw mooy moom kenn du ko sàdd xasama yuqra waaye wala yu shaddu da ngeen wala yu shaddu min ris lin xoola boo ñëwaatee fii min ris gisoo ko nii kii kasara la laaj min ris lin kasara la laaj da ah mënul nekk mënul nekk mënul nekk mënul nekk loolu nag da ko wax waa loo wax joo xamante ne bi lu nekk dafa nekk ci biir masalan bu ñu waxee noonu boo jëlee baat lu mel ne ci riwaaya ci riwaaya warsh wala riwaaya xaaloon jalal xaaloon xam nga lii warsh la jalal xaaloon lu mel ne tabsoro bi rek kii tabsoro boo jëlee riwaaya waaw bu ef moo baax moom laa soxla waaw boo jëlee riwaaya xaaloon wala illaa ma xamalat zuhuruhuma lay jàng illaa ma xamalat zuhuruhuma mais ñun fii bu ñuy jàngal bu ñuy jàngal izhaar kon misaal bi mënuñ ko andi parce que yaakaar naa ne war chantier azraq daf koy idxaama voilà boo jëlee lu mel ni masalan boo jëlee yuadibu yuadib fii warsh daf koy izhaar lu muy wax yuadib ah may yasha mais bu dee bu dee euh, euh, xaalun hmm? yu'azzim ma lay wax daf ko idgham kon bu ñu jàngal kon ci misaal mënuñu koo indi ci riwaaya xaalun fii da kon loolu day wane ni maanaam boom lu ca nekk rek fu mu ca man di doon yaay xool lan la laaj waaye règle bi moom du soppeeku ak riwaay boo mën di jàng izhaar daal mooy masque ba dañ koy sukkoon la ca topp nga masque nañ ko war a jànge waaye xam daa mooy kenn du ko sàdd da ngeen voilà waariki arfa alladi mhm. ah lan lii loolu kay yow yow masalan masalan yow kay bu dee bu dee bu dee bu dee xam nga lii lii lii bu dee lii xam nga lii riwaaye warsh la waaw lii nuñ koy maase ngay wax yow laa koy laaj mi ko jàng ba pare hmm? waaw. yaa gi loolu taxuñoo yóg tey mais loolu jàng nga ko pare yow laa koy laaj laa wax kay ci li nga weesu yow loolu laa laaj nga leeral ma ko jàng nga ko lépp di tay jàng nga ko jàng bu leer sax ah? mais ñun li ñuy giseel fii mooy izhar lañ leen di jàngal izhar lañuy ñuy jàngale di wane ne rek maanaam riwaaya bu mu mën di nekk nañ koy jànge yaay xool misaal ba ca jaadu parce que fii fii bu doonoon riwaaya riwaaya warsh mënul nekk misaal ci izhar ilaa maa xamalaw la ñuy jàng dañ koy idgham fii bu doon bu doonee riwaaya xaaloon mënul nekk misaal loolu lañ la jubloo wax moo tax ñu indi ñaari riwaaya yi amaa nag maas lii moom yow laa koy def loolu <laughs> ah oui ma lii dañ ko jàng ba pare jàng ah, nañ ko pare wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ah jàng nañ ko pare de ah ma wax la ko wala jàng nga ko pare de loolu mi ngi ci ah, ah, nuunu saakin hmm? voilà foofu foofu la nekk waaw moo tax ma ne jàng nañ ko ba pare voilà dégg kon alxawlu في المظهر أو ما يظهر فمظهر سكونه مصور وعارف xarfa alladi min baadu xasab ma yuqra waaye nag wala yushaddu dégg ngeen wala yushaddu kon pare nañ ci pare nañ ci izhar lan moo ci topp ku ma jàng waay wi ci topp laa laa laa taqra laa taqra anta laa laa yéen ñaar ñëpp jàng ngeen ay bismillah jàng iqra après ma àggale booy شددت شددت شددت وعرم بصوت أدغمت وكل حرف بعده شددت كون إدغام لي جانجل فوف وعري ما بصوته أدغمت ويو ويو موتخ mu ne nag idxaam mooy xukuma idxaam mooy euh, taariyat alxarf almudxam dégg من السكون مع تشديد الحرف المدغم فيه المثال mu ne lan mooy idgham mu ne la waarri bu laal na nga rafleel taariya lan maa li nga xam ne adramtahu da danga koy idram bi sawti yi nga xam ne sawtu ci boppam dafa dem bàyyiwoo fa dara mu ne mu ne ko araf boobu moom araf bépp boo ko idxaamee sawtu bu day dem kon da nga ciy dégg maanaam idxaam xaalis kon da am na benn idxaam maanaam war a wax bu nekk idxaam xaalis neen araf bu ko laal fenn waa arri na nga taari muy na nga rafeel maa araf bi nga xam ne ah adramtahu da nga ko idxaam bi sawti ci kàddu nga maanaam sawtu ba sax dafa demaale kon araf boobu kon bu ko laal léegi muy wax la ca ginnaawam waaye nag wakkuloo arfin bépp araf boo xam baadoo moo ca topp shaddat nag moo ko sàddal wala leer na hmm? gisoon yi xoola bal xam nga laam ak raa bar gisoo ko ni laam gi daa dem carrément xool sifa bi daa dem maxraj bi dem gisoo ko ni lépp dem bar raana mu ne kon laam gi bu ko laal fenn loolu la kon loolu mooy idxal dana ci waxaat rek mais loolu mooy idgham kon daal waarima bi sawti adghamta waaye nag wa kullu harfin ba'dahu shaddatta dégg ngeen lu mel ni xoola voilà tey moom tey moom damay bind gis ngeen mi mbind hmm? lii ko ma koy maasal ci riwaaya wars am tariqil azraq ndax baax na ah am ngeen ci lu ngeen ciy wax na keneen ñëw ku ne baaxut na ñëw ma xool e kaay kaay atel saxir a ah, bàyyi ni eh eh eh bu kenn wax kenn gën leen ci gën leen ci gën ci masque yi na xaw leer na gën a leer na leer bu baax waaw d'accord ah doyit voilà parce que dama war laa leen wax de daa am ko ci d'accord d'accord ah waaw ma ñëwal maasal ma kay li taxaw noonu am Pape Sonko Pape Sonko mu xëy na. wala xad darabna wala xad darabna ah léegi am na ñaari kii yéen ban ban ngeen ci d'accord ci ñaari ah am nañu d'accord bi ci kaw yéegi dañ seen loxo ma xool yéen waa bi ci kaw ah mais ci suuf am nay candidat yu bari nag kon wàcce leen seen loxo seen naa leen wàcce leen seen loxo ana ñoo xam ne ci suuf yow riwaay war si téye sa loxo bi sa loxo bi téye ko de que connu. yaa tax voilà parce que idgham la parce que maanaam euh, kii an tariq al dañ koy idgham idgham maanaam xaalis loolu moo tax moo tax daal gi kenn ko laal da ngeen wala xam barab naa ngay wax mais doo wax wala naa da ngeen waaw incha allah kon euh, xam naa kon daal ci tënk euh, idgham xamle nañ mooy lan tey muy idgham xaalis muy waarima bi sawti adghamta Hmm? wakkul harfin baadahu shadata ci ci tënk la ma idxaam xaalis kon salaamaaleykum bak hmm, ba voilà loolu loolu loolu dafa li ngay laaj dafa moo tax muy wax idxaam xaalis la wax dana ñëw ci xeet bii ngay wax insha allah waaw ah, dana wax ah baax na asalaamaaleykum